dafa am fu mu ma yebaloon ma dem fa mu am feneen fu ma yebal yoon wi la ma téléphoné na ma wàññeekul nga lijjanti ku fa def da nga ñëw Thiès yàlla dogal may ñëw ba ci yoon bi oto bi paal lii moo waral yéex jéegi waaye du suñu coobare nee mu ngi lay nuju mu ngi lay mu ngi lay ndokkeel képp koo xam ne yàlla dogal na tey télé bi bu télé bi tant bi nga ronu ko ngay góor baa ngay jigéen di mag maa ngay ndaw di ku xonk nga juul mbaa nga gàtt mbaa nga jool sëriñ baa lay nuyu di la jigéen ñi mille fois di góor ñi nuyoo di nuyu soxna Lalla mi fi jógee ak sëriñ Maam Ousmane si ndax ñoom ñooy sëriñ bi man jaamu bi di wax ne bët set na ba pare rasulillahi la ñu duñu fi wax dara lu génn yonent bi Tidiane Cheikh Seydil si sallallahu alayhi wa lii may bëgg wax ñetti kàddu kàddu gii may bëgg yëkkati bu ma ko daaneelee lu nit ñeme ñeme yàlla ñeme woo koo wéet bi ñett la ñett sëriñ Kabiru Seen maa ngi lay beral nuyoo yaag sama ñaari xarit yooyu Muhammaday ak ñi wër taabal ji yëpp di nuyu Serigne Papa di ko ndokkeel ñetti kàddu laa yëkkati ubbee ko jataay bi lu nit ñeme ñeme yàlla ñeme woo koo wéet ñetti yii may bëgg a wax bi ci njëkk mooy ku toog ci tànt bi xam nga ne dee mu mën a wéet yëkkati loxo dama ne tànt bi ku ko waroon wóor na la di nga dee na kenn weddi ko ñaareel bi pour wut koronu tant bi xam nga ne yàllaa la bind te lay bind kenn dimbalewu ko ñetteel bi ku toog ci bi xam nga ne nabee la gën moo gën sa baay gën ku sa kudul sa baay ñett yi lu nit ñeme ñeme yàlla sañoo ko wét dama ne koronu tant bi wóor naa la di muy benn ku fi ne it wóor na la la bind te lay bind kenn dimbalewu ku fi ne it xam nga ne nabee la gën moo gën sa baay gën ku sa baay ñett yi moo wér nabi moomu lañ bëgg a waxtaane dafa xëy suba teel na woo leen la Babacar Sadiq ñu woo mu ne toogal woo leen ma Omar ibnul Xataab ñu woo mu ne toogal woo leen ma Ousmane ibn Affan ñu woo mu bi muy jooy rombaat ko muy wee nabi nee na laa yasidu fil umri ilal birr kenn mënta gudd fan te baaxoo ci jaamu yàlla ka masaari a suu kuy saraxe ku la songu daanu koo songu mu daanu moo tax ma ne bariwul njëriñ ñett rek la nabi ne Babacar mu ne la bayka mu ne Jibril xalifa ma bëgg yow ci sa gis-gis ak sa xeetu njàng nga wax ma luy mbaa mal bi mu yaa Ababakar ni Siddiq Babacar ne ko jarul ciow mbax jaruma laaj ya ma gëna xam mbaax ndax ya ma jangal ya ma yar mbax len la du ñaar du al birru haqiqatan mahabbatuka mbax moy sopp la ku la sopp baax na ku la soppul bon nabi ne ko Babacar wax nga de koy da nga juum fa inna mahabbati juz'un min birri sopp ma ben xaj bu tuti la ci mbax des na li tax Babacar wax lol nit ki boko ko xam moy kat dang koy wax lo mbaa nga ku wax ñu beesal xam la ngay yëg koo dëkkal bu yàggee nga xam ci a Babacar addunaam yëpp daf ko jaayee jund ak yeneen bi nabi dafa woote bis na saaba yi kaay leen ñu ñëw mu ne dama am soxla bi ma am du ko wax kenn lu waay am dimbalee ma ngir yàlla Seydina Umar ibn al-Khattab dugg këram xaaj alalam ñaari xaaj andi genn wàll desal benn Ousmane Ibn Affan dugg këram xaaj alalam ñetti xaaj andi benn desal ñaar seen naa leen sama turam doo dugg këram lu ne mu war gisu mu simmi mbubb ma def biiru neen andi joxe ne ne ko solal na la Omar Babacar dugg këram euh, euh, doon nen ak cuuj ya ak nen yañ todagul euh, bota ya seen yaay ya xar ya ak bëy ya kuti yi ñuy lekke ak kopp yi dàll yi mbaxana yi kool yi musóor yi nopp yi seen jaar yiñ ci takk ak seen takkaay yeeg montre yi cunwaar yi ñu yekkee ak cin yi ak noppale yañ koy teg kaas yi naanee café suukar sañ doon dékkee démb mu des mu ne lépp yéen leen ko ngeen xeddiwaale léegi ñu ko ñu yéenu ko mel ni nga pël buy maan nga pënd ba na kur ah. mu ñëw ba ci kanam rasulullah ba yi naan mee xar yi ah. naan mee ginaar yi naan ceeb ceeb kooku yi naan kaaraan ngaan ngaan ngaan kuti yi naan lan waan mun a rës ci kanam rasulullah law kullu zalika wa nafsi hadiyatan laka ya rasulallah lépp a ngi ak sama jëmm ji jox naa la ko hadiya مولانا لقد فاق اصحاب النبي لما له قرار من القلب النقي حصول خم دلوم لا يجاي لا القلب اسف بكو رسول الله مودا بودي بي خلاص الزاف مولا جي ماري دينا لا واخني ام كلثوم فخير بناته بطول لها سيد من السدم غدي ما تي خلاص وان رن لعين القلب يحضره جنوده وهو راعي Maodo yi mbër wa Fatimun Fatima ummu Kalsoom nabi nee na fa xayru banaat yi ku nabi jur ñaar biir ci gën ñu ne maam Laaji Maalik Jeet ku ci gën ci ñoom ñaar mu ne Fatimun nag Fatima moo gën lahaa saydun moo gën a baax lu tax mu ne mina sadami nga xër bu mu xër ci bàyyi nit yàlla ku la gën a xër ci moom gën la ko sopp moo la gën نيك نفوكو لين نين فيلي موي كلمه الاقبال الحمد لله الذي احيانا من بعد ما اماتنا احيانا احيا بلدي في اي جامونو بي دي فيري ديك نينا بابا كاستيك غانا نوي باخو لي باخ موي بوك يونيتي رامون كابي سي نام تو لا واخ ني خطاب يوم باخ نمبر ياغي واخ بن باخ boo ma ñëwee nañ raag al al al al al biru fi sabilillah nañu rocc jaas yi di raag ngir yàlla rek li baax na ku li baax mu ne ko wax nga dëgg wa inna zalika juz'un min al-birr woo leen moo soxali naa sax xam nga lu tax mu wax la Seydina Omar ibn al-Khattab addunaam dañoo ñoom benn waaye ci daara ji dafa naqat rek boo ne kaay ñaan mu maa tey wag loxo bi ñëpp di ko mooy ko Omar a xoraw ci bëgg histoire kon nam toll la waxee ñu ne Seydina Ousmane Ibn Affan yow luy mbir luy baax mu ne albir haqiqatan infaqu maalika fi sabilillah ëppale nit ñi defe ko ci ko dimbale te yàlla tax ku def li baax na li baax na na ko wa inna dalika gis min al bir tabaski day ñëw nga gis ko yor six cent six cent mille divisé par six ñaata la cent mille nga mën a dem ca daral nga jënd ca six xar fekk kabinu seen nga fukk ku guddi jox ko benn ba te kenn du yëg Mohamed Seck nga jox ko benn te kenn du yëg fekk papa nga jox ko benn jox imam benn jox sëriñ bii benn dese benn rendi ko nga lànk dem jëndee ko xar muy jar six cent mille yeew te xar yi nag dañoo wuute ñuy jar boo déggee xar mu naan eh, bul laaj vingt mille lay jar boo déggee xar mu bul laaj cinquante mille soixante boo déggee xar mu naan béet bul laaj cent mille lay jar boo déggee xar mu naan béet bul laaj trois cent mille lay jar waaye boo déggee xar mu naan béet bul laaj six cent sept kon loolay baax ñu ne Seydina Ali ibn Abi mal biru ya Ali Seydina Ali mu ne al biru haqiqatan infaasu kalimatullahi la ila allah muhammadu rasulillah mbaax moo di bu yàlla ne waaw ñu ne waaw mu ne déet ñu ne déet bu ñu yeggee ci boobu ni ba baax nañ bu ñu yegg tànk yegguñ ko baaxul nabi na ko wa inna zalika juz'un min al birri wax nga dëgg waaye loolu benn xaaj la ci mbaax Babacar ne man gàtt naa su fekkee ne bëgg la du mbaar Omar ne gàtt naa su fekkee ne xeex ci yoon yàlla du mbaar ne gàtt naa su fekkee dimbale yàlla du baax Ali ne gàtt naa fekkee yëkkati laa ilaha illallah du baax ya rasulallah man biru haqiqa nabi ne leen bu leen sonn al nabi ne na mbaax mooy rafet ji ko ku rafet waaye ku ñaaw ji ko pare waa dëkk bi dégg ndox mi ba pare au lieu que ko ñuy xëccoo ndox mi pour di ko may ma ma naan may ma ma góob may ma ma góob ko kenn wét ca biiru seen boo demee ci téere yi daa fekk rabbi rasulullahi ne ana madinatul ilmi waaliyun baabu saaki mur bur baadiyatul masta maay xutbu jamono du ma sukk du ma sukk ci kenn ku sukk ci sama du ma sukk ci kanam parce que mission yi bokk na ba ñu mu génn àdduna yàllaay moo tax Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala nee na man araada dunya fa alayhi bi wa man araada alaxirata fa alayhi bi wa man araadahuma ma an fa alayhi bi lay wax nga ko léegi yéen ñëpp a fal ku bëgg du fekk borom diina ñu sell mu toroxal ko ku bëgg àllaxira jàngal ku bëgg ñaar yëpp booleel jàng ku am boo bëggee boo jàngee am ñaar yëpp di sëy ci kër ba ki doon borom kër ndax walil waarisi maalil mawruusi waaye walil waarisi maalul mawruusi boo juree doom mu doon sa kër baay doon na baay doon na mbubb doon na mbaxana doon na paak doon na portable doon na kurus doon na yar ak a ñàkk fulla sa baay doonoon na ko ci baayam waaye sa baay teye bàyyiwul la dara balaa ñuy dawal ak lu sa baay doon faj ngay faj junneem te tàlloo kenn loxo sa ndey rek ko mën a liggéey sa kër Fatima di def ba la ko fi laawee nabi xool ko yërëm ko di jooy maa yëg maa abi mu ne ko rahmatan fii binti loo ma yërëlee mu ne ko bi daa métti kenn nga ci kër mu ne ko soo ma na may ma jaam jaam yaa ngi ci gi ñu la koy jox suba ak ngoon ngay goreen soo ci mayoon ñaar ñu may dëbbal mu ne ko bañu ma ko waaye dafa am lu inna allaha jaala zuriyata kulli nabiyin fii sulbihi wa jaala zuriyati fii sulbi aliyin ibn abi talib yonent bu nekk sa njaboot yaa leen di jur des ma du ma fi ba doom di góor sama sama sët yi ëllëg yaa leen di ëmb te boo ñàkkul ci kër jëkkër boo liggéey ñuy yées te rus naa ëllëg sëtu yonent bi dem ci place di yées kon ñàkk ko fi boo liggéey sëriñ yëpp teg waaye defe naa bi Cheikh Tidiane màggee ñëpp xam nañ ne sëriñ yi teg tey laa lay wax lu yéemu ci Cheikh Tidiane balaa ñuy gàmmu ka bi yëguloo ne li Cheikh rek Cheikh rek rek am yëguloo ne li Maodo Maodo rek nee na saxooliya yow nga ne yamaaniya mu ne borom risaala dafa réeral carte gi carte gi masala mi la réeral montre bi mbaxana mi kabiru seet nag sol fu mu ko jëndee nga ne Thiès fan ci Thiès mooy saxooliya respon mën na laaj maa du ma wax respon carte bi nu yamaaniya si talo bi la ca bitu ko Ahmed ba jawee du njàkkay imam Cissé mooy yamaaniya kii dafa précisément kii wax rek na région Thiès Maodo na déedéet yamaani ya da ngay dem ci quartier bële ci nga bitig bee boo yeggee fee lañ ko jëndee bokk la boo demee région Thiès fa lañ ko jëndee leer na wala leer Sëñ Malick ko ko ko lu borom xam-xam muy Cheikh na Tidiane tamit Cheikh dafa xëy na mag ñi xam naa lu yàlla xam mën naa lu yàlla mënul dafa jëli doom damaa deen dafa jëli doom mooy yaram weer tàngul ma eh, ku day ne yàlla nga ne nga ne mën na xam naa lu yàlla xamul mu ne xam naa lu yàlla xamul seet di yàlla loo xam te yàlla xamoo ko mu ne xam naa ku ma bind na ma yàlla wax moom ku ko bind mën naa lu yàlla mënul loo xam te yàlla mënu ko mu ne mën naa koo jaam moom na wax mu mën a jaam sañ naa lu yàlla sañul سلاسل تيا على سني كمان سني ناتروح لهم ديك يوم مرجو مام سني ناتروح لهم ديك أم نالي على أم لو أم تيا على كمان ده يك باي كمان ده يك باي يا لنا ما تبلاه مكوني يوم باي رضو الله أو نور رحمن أيام ما تدعو فلو الأسماء الحسنى ولا تجر بسناتك ولا تخافت بها واقتب بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره بركنا gis naa lu yàlla gisul loo gis te yàlla gisul ko mën a sama doom yàlla moom na wax kuy doom moo tax moo tax tawhiid boobu yi lay jàngal moo tax loolu lay gën di mën a mën a bañ ku ne war waa dee saale

borom daara ji taar bi ci moom xam-xam bi ci moom yiw bi ci moom sell bi ci moom bëgg ndam bi ci a yóbbu mag a maye ato mën a bind ijaasa wala ala jabda sabaa borom bee jaaw ba ci tiwaawan nga xam ne lépp lu ñaawoon bu kàddoo yax yax bu yëkkatee ne est-ce nga xëy tëral ko ñu sang ko sang ko mën ta yëgu ñu xool ci suuf ne ko suuf dungu kenn mën ta yëgu ku amul kilifa ko sañ boo amoon kilifa ay yëf fekk ko laaj ma ñetteelu sikki yàlla ñaareelu sikk ba ka bi nee na ku yor sa xalaat yéen man soxlawuma xalaatu kenn man ko aaru ah, di bàyyi nag bu ma neex def heure bu ma neex laa koy def maa tey laaj ma ñetteelu sikk yàlla ànd fi ñëpp di ay ñëpp ñëpp dee mu des fi ne léegi te kenn mënul ci moom dara al awalu la si laysa li awaliyati ibtidaahu wal axiru la si laysa li axirati intihaahu wa saayiru la si laysa fawqahu shay'un wal baatilu la si laysa duunahu shay'un kenn xamul foo koy jaar moo tax damay faral wax ne lu nit réew réew mbaa nga xamati war ngaa bàyyi xel yàlla ndax de ku li na mawtal la si tafiruna minu fa innahu mulaaqiikum summa ila aalimil ghaybi wa shahaada te du ceeb fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun yàlla ku bari histoire dama ne lu nit réew réew war a góorgóorlu ndax de Ablaye Ndaw dag maa wét dee daa yoon ñetti jikko ba nga sa baara du la wax la ñëw du la wax lay fekk am fu la ju doy buy dem du la fi wax dafa naa déggoo boo ma ay sataat bi man dama jabar ju bees maay joxe dooraa maay sëre bi mu ne la laa ilaha illallah yow yóbboo li xew xanaa jàngoo isa jaa ajaluhaa laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuuna yow mii lañ ma wax na ma tey na nga fanaani looloo fu mu lay fekk am na fu la ci day ne buy dem du la fi dox. waaye li muy ñàkk ñàkk kersa bàmmeel la ko gën a ñàkk kersa bàmmeel mu daal yow laaj ma luy ci koy bàmmeel këris nëmu nemm déggu yàlla ne nu ngeen gaaw taal leen bàmmeel amul ci lumière këris rek nëmm rek mooy boo tëddee ndeyjoor amul ëlbati côté شيخ الحاج عباد اثنين ونجنا من ظلمة الخمر